fu nu xëyee daf ñuy indil ay bon plans ci ay bons coups n'est-ce pas Dex alors tey euh, li leen ñu andil moom mooy benn métier bi nga xamante ne Sénégal bu yàgg dañ ko yàgg di gis peut dañuy gis toujours moom la ñuy wax euh, li nga xamante ne moom la ñuy defar mu pare rafet am taar trop mais souvent du ñuy xam euh, naka la ñuy def pour liggéey ko dans quelles conditions at nu liggéey fu liggéey métier bu jugee donc looloo waral tey ñu gëstul leen ñi nga xamante ne ñooy ràbb pañe dañuy seetaan élément yi juste après bu ñu dellu see ñu yaatal jaa ngeen jëf xale yi xol sedd tina daal Ali eh, métier bi nga def ñaata at yaa koy def. ma yàgg au moins am plus de vingt ans. plus de vingt ans. waaw. ça veut dire depuis ay années quatre vingt dix yaa ngi fi. maa ah. ngi fi avant même. après avant même sax. parce que ba may jàng école laa ma doon jàng. ah kon fi nga ko jàngee. non non. sama parent moom ma ko jàngal woon. yéen a ngi kër kër yi liggéey di ko matal waaw góor yee man teg naa. léegi lii par exemple euh, yan matière ngeen di utiliser foo koy jëlee. non ñu ngi utiliser le roñi mooy oh. kóoni quoi kóoni xob xobu kóoni. xobu kóoni waaw loolu mooy utiliser waaw. d' léegi euh, lii pour nga defal ko dana la jël par exemple panier bii ngay defal nii dina la jël ñaata jours. panier bii ma defal bii ma téye bi ma téye deux heures de temps pas plus. deux heures de temps ndaw yi yëngatu leen bu leen ko kenn mënal sutura mën nga ñu wax tey euh, jafe-jafe yi nekk ci liggéey bi ah jafe-jafe yi comme comme tout comme comme comme tout jafe-jafe yi ci liggéey yëpp pour clientèle rek boo amee clientèle rek ça marche soo amul xam ne c'est comme ça mais jafe-jafe yëpp mooy clientèle bi am na waaw ah, macha allah ñu ngi ñëw sax de wax dëgg yàlla xam uh-huh. na nag clientèle moom chaque jour nga jaay quoi mais au moins

kese ngeen di demee noonu la jàmbaar war a li ma gis léegi ci Sénégal Hmm? voilà donc euh, muy euh, ay panier yu rafet yi ñuy defar te yemul ci panier ah donc lépp loo xamante ne euh, ci décoration la soo ñëwee woon ko ko modèle bi mën na la ko defaral il peut même habiller un ventilateur c'est-à-dire hmm. pied ventilateur hmm. il peut te l'habiller ba nga xamante ne day ñëw rek dugg ci biir et ah tout ah oui oui donc ah, dañ koy décorer mën ah, nañ habiller pied bi quoi fii fii taxaw nii dañ koy génnee rek ak ñu habiller la ko nii ci suuf exactement donc il faut te dire aussi que comme par exemple panier yi ngay wax c'est vrai vrai que marché yi ñu ciy dem mm-hmm. mais tu vois en ce moment dafa benn tendance comme ci xew yeeg yooyu xam nga dañuy naan panier dox daje mm-hmm. donc d'habitude panier yi ni ñuy jël décorer ko def ci soie ba nga xamante ne da lay jox benn design accord bi di ñëw voilà accord bi di ñëw tamit panier yi dañuy def ci ay sukkaru koor voilà même mariage yi même mariage yi voilà c'est très pratique et c'est un bon plan euh, donc euh, euh, mm. yi tey le plus important moom mooy ñuy bàyyi xel je le je le dis. tout le temps c'est vrai que ñu ñu ñu jar a bàyyi xel. su ma leen di tour su may tourner laa koy xam. quand je pose la caméra am na lu ay sentiments yooyu am c'est des gens qui sont dans l'oubli. à la limite des gens comme on dit euh, le Sénégal euh, on peut pas le construire juste avec des bureaucrates donc ñii dañu bokk ci dëkk ba teg kii euh, brin yi nii. Mhm. donc après bu nattee nii rek voilà pratique la. donc am na c'est automatique dans sa tête. Mhm. donc xam na déjà comment ils sont deux ñaar la donc keneen ko aussi Pape Diouf la tudd donc Pape Diouf tamit moo koy jàppale bu ñu sànjaafoo benn canapé deux mhm. jours gars yi ko armoire xam bu njëkk armoire dañ ko ràbb. donc vraiment muy métier bi nga xamante ne aussi je tenais à le présenter aux Sénégalais que nit di leen bàyyi xel di leen wax ne aussi continuer xam ne ñooy jël euh, xottu la sa la la ah, feuille kóoni feuille de kóoni ah <laughs> kóoni laa gëj gis am na yoonu puut yoonu cinquante am na itam booy dem Tivaouane booy dem Thiès parce que souvent gars yi buñ dee ñëw Dakar dañ ko daan indaale serite ah euh, indi xottu kóoni ci kayoor kayoor yëpp kooni la waaw moom jox ma ñaari xott koo gis ay bëtam jege da naa la la ah. xam nga xott bi moo non non ah, pour ñi xamul kooni xam nga yow tubaab nga xëy na xamoo euh, mooy ah xott mooy bi noonu voilà waaw xam nga xott bu xott bi dafa rond noonu hmm. ba pare am lu tolloog ñeenti bët ci kaw ah ñaari bët wala wala wala wala benn bët. et puis boo dindee bët bi après. Euh, xott bi rek mooy des dafay roo. day am plus am voilà te ah. ñam ci biir euh, am itam ndox. et ce serait bien nga defal ñu benn recette ak koni. non kii kay ah. <laughs> ah salade au wala nga indil ñu euh, panier boo xamante ni dina am ñaari ñaari xot koni. voilà voilà salade au koni.

Boubacar Diallo moo ko yëglee eh, bu fekkee mën nga ñu ko mayaat léegi nii bu ko defee suñu gars yi mën koo pare le 20 ak le 21 deux jours durant pour fêter la musique